am am nañ ci yaakaar moom dinañu jeex waaw ay fan yu néew moom moo ci des moom am nañu yaakaar moom dinañu jeex soobee yàlla walaay. mën ngeen gisee peut-être période bi par rapport ak euh, tabaski daaw wala weesu instant bi période bi nu mu demee quoi nit ñi ak yooyu. waaw waaw boobu moom am na différence tuuti rek lam gaa yi moom xam nga booy xool fitna bu ñu doon def euh, jamono yee paase moo xaw a suuxal yëf mi am na client yoo xamante ne ñëwuñu. waaye ñaw yi moom am nañu sax man presque moom daa ne ñoo gën a bëri loolu moom moo xaw a suufeel yëf mi lool ba am na client yu boo xamante ne mu ñëw leen a gis sax ci yëf mi noonu la fa demee walaay loolu la de. Hmm. moment xam nañ ne yaakaar ngeen ne peut-être ñaw yi nga xam ne engagé ngeen ak yooyu ngeen ko mën a livrer à temps. waaw soobee yàlla moom ku ci am fi ñaw duñ ko jël de soobee yàlla nañ ko jël de. incha allahu rabi. Hmm. dañoo seetlu jamono ji peut euh, bu feet ñëwee ak yi ci la affluence bi di gën a bëri quoi ci ngeen di gën a bëri ay commande ak yooyu parce que doon di faral di ay jafe-jafe tamit. waaw wax nga dëgg xam nga tabaski moom ñëpp ay ñawlu xale yeeg jigéen ñi yëpp ay ñawlu korite man ngaa wax se xale yi ñoo ci gën a am doole. loolu moo tax waaye tabaski moom daa nekk feet boo xamante ne ñëpp ñoo ciy ñawlu moo tax daal lu ci ñëw rek ku nekk sa client rek fee ko mu dem soo ko defee mu jot ci quoi. loolu moo gën jël lu yem nag ñaw ko mu jeex moo gën ngay tardel ñëw jàmbur nekkul loo xamante ne arrangement la lam nit moom soo jëlee ñëw jàmbur war nga koo mën a ñëw jox ko ko loolu mooy yoon waaw waaye attaqué ñëw jàmbur yi nga koy tardel du yoon kon ñun ñuy liggéey nañu sóoraale lu mel noonu client yi am na ci ñoo xamante ne ci kiliyaay yi mag dañuy xaw a yéex munoo comprendre dañ lay forcer ba nga jël ko soo ko ñëwul muy toog di naan di ngaa sama ñaw bi nii ak nii ak nii moo tax ñu mel noonu itam client yi nañ ci bàyyi xel événement tabaski su ñëwatee ñu teel a indi seen ñaw soo ko defee ñu teel cee jox ñu am benn jafe-jafe lam ni waroon naa fekk ñun ñëpp nit ku ne soo nekkee tailleur war ngaa mën a jël jël sa ñaw bu ñuy naan suba la tabaski nga pare ci ñaw jaamur yëpp dem dëkk ba waaye fii ngay nekk ñaw a ñaw ba sonn mooy loolu dafa métti. dafa mel ni gars dañuy dañuy yéex a ñëw quoi. dañuy yéex a ñëw de dañuy yéex a ñëw trop. wallaay dañuy yéex a ñëw loolu mooy problème bi xam nga suñu doon teel a ñëw rek dañ la ñëwal nga dem waaye dañuy yéex a ñëw quoi loolu mooy problème bi. Mhm. li ñu doon tool a ñëw moom dina neex trop waaye moom dañuy yéex a ñëw koo ci tardel ñëwam muy naan dafa tardé ñëw sama ñëw nii ak nii ak nii boobaa ñoo na ñoo ma quoi moo tax yëf mi daal doy na waar. Mhm. instant bi daal yow yaakaar nga ne par rapport ak euh, comme ni ko waxee sànq timing bi li ngeen engagé daal moom di ngeen ko mën a kii dinañ ko mën a dinañ ko mën a ñëw de soobee yàlla da ñëw bu ma am borom borom ku ko moom na ko jël de day métti nag waaye dina ko jël de. bloqué ngeen wala yéen a ngi jëlaat ba léegi. ah ma nag bu ma nekk nii sañatuma jël ñëw de sañatuma jël ñëw ñëw bàyyi rek lu fay li fi nekk ñëw ko mu jeex seen boroom jot ko seen xel set. am loolu ci loolu moo ci am solo ñaw moom di nga toll foo xamante na doo jëlati ñaw da ngay fexe ñaw li nga li nga am fii seen borom man koo jël moo gën. waaw li fi nekk daal dinaa fexe ku ku moom fi ñëw duñ ko jël soobee yàlla. soxna si tur bi naka la. Koura Diouf. waaw ah, Koura ñu ngi la fekk fii euh, ci marché Grand Yoff mën nañ ne fukki fan wala lu ko néew moo des ci tabas kii bi yow nag euh, ñëwkat nga jàkkatu si nga te it ñëwkat nga parce que mën nga ñu ñëwalaat euh, fi mu nekk nii mbir yi nu fii waaw ñun def si marché bi nañ nekk xaw nañ fi yàgg nag waaye nag euh, ñu ngi si jaay bi damay jaay tusi dañuy ñaw en même temps waaw mais nag euh, ñaw bi daal tabaski baa ngi nii boobu ba léegi nag neexagul noonu waa neexagul noonu ndaxte clients yi gisuñu leen dëkk bi nag moom moo metti waaw xaalis amul gisuñu clients yi daal pour le moment nànk-nànk daal la ñuy gis clients yi waaw. non daaw nag moom moo gën daaw daaw moo gën a neex ren nag pour la moment xëy na nag si kanam dina dina kii daal si suñu njott ñun daal ñu ngi espérer si kanam xëy na nit ñi dina ñëw waaw. yow da ngay jaay tissu wante tam da ngay ñëw. damay jaay tissu damay ñëw mais du man may ñëw en personne damay ut tailleur di ko ñëw waaw mais nag côté boobu am na difficulté ndaxte tailleur yi moment bi moom ñoom ñooy suñu buur moom. waaw parce que ñaw bi dañuy ñëw dañ su leen neexee ñu ñaw ba mu neex leen ñu arrêté ñaw bi dem uutiwaat feneen waaw cher na aussi fu mu nekk ni soo amul 7000 doo am tailleur wala 8000 francs waaw. 8000 par par yére. par journée. waaw par journée ngeen leen. soo amul 7000 wala 8000 duñ la ñawal. waaw instant bi daal metti na trop trop trop te côté boobu tamit duñ leen blâmer te ñoom tamit aussi dañuy ut lu ñu am waaw loolu daal mooy difficulté bi waaw. da nga yaakaar loolu lu ciy solution la ko. ah solution bi xanaa ah xëy na tamit ñu dëkk bi demee la rek solution bi xanaa ñoom tamit ñoom ñu jàppale ñu rek xam ne ñun tamit seen yaay lañu seen seen mag lañu. waa liggéey bi ñun ñoo ko bokk waaw nañ ko oyofal ba mu oyof rek ñu mën a nekk ensemble waaw. à part ça nag marché bi neex na am na jàmm waaw ñu ngi dëkk en communauté nekk jàmm. waaw wàllum tissu yi mu ngi yi mu ngi. waaw tissu yi mi ngi dox ndànk-ndànk ndànk-ndànk instant bii ndànk-ndànk rek moo fi de waaw mais ñu ngi sant yàlla nag bu baax mais daaw moom moo moo tane woon mais ren xëy na tamit dina neex si kanam. waaw loolu mën ñu ñëw dernier. waaw waaw parce que sénégalais loolu la xam toujours ñun dernier moment la ñuy jóg te dernier moment la ñuy am waaw loolu la daal. waaw ah, sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw baax. tur bi naka la. Babacar Seck. waaw Babacar euh, ñu ngi leen fekk fii seen bërëbu liggéeyukaay fi mu nekk nii nag euh, mën nañ ne fukki fan wala lu ko yées moo des euh, ci tabaski bi ana fan ngeen toll ci liggéey bi. waaw instant bi moom affaire yi moom sori bu baax a baax quoi waaw parce que li si des moom bareetul mun naa xam ne ay quelques jours moo ci des rek te xam naa ne incha allah yëpp dina dina mat incha allah si kàttanu yàlla niñ bëggee tabaski bi xay na ak jafe-jafe yi am fan yi moo xaw a laal ñu bari sax moo tax lu bari sax aw am xaw am ay gàllankoor mais ñu ngi sant yàlla quand même euh, te si bés buñ jëm nii te dañuy ñaan yàlla jëm si si si jàmm ak salaam yàlla may ñi ci ndam te am nañ njort ne ñaw yëpp dina pare euh, liggéey bi yëpp dina yemb incha allah am nañ ci yaakaar bu baax daal waaw. nekk nii bugale bugale ngeen wala yéen a ngi jëlaat ay ñaw wala. no instant yi moom arrêté nañ quoi vraiment am na ñoo xam ne bu ñëwee sax dañ ñaan leen carrément. affaire yi moom léegi mënatut a kii waaw mais am na ñoo xam ne ñoo am na client yoo xam ne mënu leen a ñàkk jël ñoo xamante ni depuis longtemps yi dañu nekk ñooñu lu mu métti métti da nga leen di jël mais dafa am ñoo xamante moom bu ñëwee da nga leen di baare am ñoo xam ne moom bu ñëwee da nga leen di jël moom yaa ma gën a xam waaw mais daal ne suñu borom lépp dina yem incha allah daal li ngeen jot a jël yëpp daal di ngeen ko mën a ñëw livrer ko à temps quoi. waaw incha allah rabbi am nañ ci yaakaar bu baax te kàtt bu soobee yàlla incha allah lépp ñëpp dañ jot waaw am nañ ci yaakaar daal bu baax a baax. boo bu doon méngalee daaw ak ak ren ban nga gis ne moo gën a peut-être dox ci moment bi ñu toll nii. waa xam nga kenn ku ne ak ni ni sa programme tëddee am na ñoo xam ne dañuy dox si ñoom am na ñoo xam ne du dox si ñoom mais ñun moom ñu ngi si sant bu baax daaw gis nañ suñu bopp ren tamit am nañ ci yaakaar bu baax a baax te gis nañ fii ni mu demee te am nañ si njort ne bu baax daal dina gën a neex daal incha allah rek am nañ ci yaakaar parce que. Euh, am na ci yaakaar daal bu baax incha allah rabbi. instant yi ñàkk a nelaw yi tàmbali na de waa ah. waaw <laughs> waaw yàgg na moom vraiment bi bi ñàkk nelaw ba léegi depuis maanaam chaque jour dañuy yendu liggéey maanaam 5 heures la ñuy tëdd 4 <coughs> heures de temps daal la ñuy 2 heures de temps daal la ñuy noppaliku ko waaw dañuy noppaliku mais comme maanaam boo affaire yi moom boo ko jëlee doole il faut xam nga rek il faut nga profité lépp daal di jeex xam nga. nga bañ a tardel kenn yëreem parce que tamit nit jox la yëreem pare nga tardel ko dafa métti te ci tour de famille boo xamante ni ñëpp enquête seen yëre xam nga xale toujours xale nag laay wax xale yi moom mënu leen a ñàkk ñawal xam nga tamit mën nga ñëw bañ a ñawal mag sax mu mag tardé mais xale moom moo gën a garaaw quoi moo tax ñaw xale lañ gën a mën a di rey suñu bopp pour xale yi mën a solo euh, mag ñi tardé ñun man personnellement man lu lay man lay lu lay reefee su may job parce que xale yi lay gën a sóoraale ci ci mag ñi man tardel mag sax moom ma gën a tardel xale ma daal lu métti métti daal incha allahu bi waaw am nañ jot daal ne affaire bi dina neex moom su soobee yàlla te gëm nañ ko tamit incha allah waaw am nañ si yaakaar bu baax a baax.